kon ñu dalal professeur Abdoulaye Dieng coordonnateur SAES euh, e mooy euh, syndicat des enseignants euh, bu supérieur fii ci Sénégal syndicat autonome des enseignants du supérieur le campus bu Ndakaaru Mame Birame ñu am mbégte di ko dalal ak xew-xew ya fa amoon ba gis nga sanction yi nga xamante ni mujj naa ba am na étudiants yoo xamante ni dañ leen jëlee définitivement foofu ci daara di koy ji waaw Chérif euh, wax nga ko Abdoulaye dien donc doon coordonnateur SAES campus Dakar euh, gannaaw euh, décision bi nga xam ne wax nga ko conseil discipline bu UCAD jël na ko lu ëpp ñaari téeméer ci étudiants yoo xam ne nii soxal na leen woon nee nañ ñeent fukk ak juróomi ay sanctions yu tar dal na seen kaw ñenn ñu dàq leen ci ay diir am ci koo xam ne moom dàq nañu ko daanaka foofu fa tegati tànk. am na ñu ci bàyyi euh, mais laataa nga ñëw ci apprécier décision bi euh, lan moo nekkoon taxawaayu euh, yéen jàngalekat yi SAES e ci mbir mi. waaw merci ñu ñuy suñu mbokk naata nekk ci toog ci plateau bi balaa ma répondre ces questions damay ñëkk a wax ne le SAES e c'est un syndicat qui défend les intérêts matériels et moraux de ses militants ba bëgg wax foofu ne étudiants yi SAES e da leen mës a jàppale. gis naa temps yi si presse ñuy wax rek waaye nañ fàttaliku démb le CES a toujours défendu dafa mës a jàppale étudiants yi ci seen combat pour ñëw nag ci sa question ñu taxawaay moo doon def lépp pour ñi nga xam ne ñoo ñu jiite autorité yi euh, ñu sécuriser suñu collègues yi parce que dañ gis ne euh, depuis ay fan ba élection yi amical yi amee université mën nañ ne c'était un champ de bataille kenn mënu woon dugg kenn mënu woon génn soo bëggee dugg sax yenn étudiants yi ne la soo avancé soo duggee ñu toj sa oto mu am na loo xam ne mën naa ko fekkee man mi wax ak yow sax na doon toj sama oto il a fallu que sama ko collègue ñoo jàppale ma ma jàmbaale ak étudiants yi tuuti ma bàyyi tuuti ñun suñu posture mooy université c'est un temple de savoir xale yi dañ fa ñëw pour jàng ñun ñu ñëw pour jàngale te dafa am loi boo xam ne moo ñu tënk mooy li qu'on appelle les franchises kenn terewul étudiants yi ñu ñaxtu am nañ droit boobu waaye violence lañ bëgg bis ni ko tey mu dàkk université yàgg na am nag bi bii moom dañ taxaw temm ne lépp lu ci war dinañ ko def moo tax it ba étudiants yi commencé ba commencé attaqué nag enseignants yi commencé attaqué biens yi jug taxaw temm nag lii mënul fi amati. Mm-hmm. léegi avec les sanctions. Mm-hmm. Euh, ban appréciation ngeen def parce que am na ñoo xamante ni daa xam ne leen définitivement. Mm-hmm. ñii ñu suspendre leen. yéen da ngeen a lu sanctions yi. waa xam nga SAES généralement du commenter décision instance parce que université ay textes moo ñu tënk textes yi conseil discipline bi nga xam ne dañ ko convoqué. mais da ngeen a grève woon professeur. xaaral ma ñëw rek dinaa si ñëw conseil discipline bi ñu bu ñu bi woon instance la daañu teg xale yi. teg si ñoo ko wax texte yi dafa lim yan façon daan dañu war a teg xale yi par rapport ak lu ñuy def. li ñu mën a wax mooy que décision yi ni ñu ko mën a apprécier mooy que c'est des solutions conjoncturelles mais pour ñun war nañ mën dem si yeneen fànn maanaam il faut ñu am ay décisions structurelles. maanaam parce que ñu dem bi nga xam ne moom mooy créer source problème bi. Mm-hmm. te loolu je pense que il faut ñu xoolaat amicale yi seen taxawaay. te soo xoolee sax décret bu bees bi président jël bi nga xam ne moo structure université yi léegi sax on ne parle plus même même plus d'amicale on parle même plus de liste par par formation te xam naa ne dina parce que problème bi on sait c'est quoi c'est c'est c'est les amicales c'est la structuration c'est les listes parce que sax am na ñu dem di wax naan sax c'est les partis politiques mais loolu du ci dugg mais li ñu si mën a li ñu si mën a xalaat daal mooy que il nous faut des solutions internes et structurelles et surtout doit aussi jouer son rôle. le code le le CROUS je parle dans le cadre général. parce que mm-hmm. c'est les universités. dama jël rek wax directement mais le CROUS doit prendre ses responsabilités mooy lan. te loolu sax euh, UCAD sax dox nañ ci ay jéego parce que codification yi nga xam ne mi ngi woon ci loxo étudiants yi. dans les régions on parle de CROUS à mm-hmm. mais li ëpp importance euh, mooy que codification yi nga xam ne mu ngi si loxo étudiants yi je pense que loolu aussi dañ war a liggéey ba rocc ko seen loxo. te loolu. bon xam nañ lu xew parce que clients yi suñu def codification. ñëpp dañ koy wax ci presse bi sax dañuy jaay seen dal yi y' a trop de problème te loolu en tout cas xam naa ne UCAD moom on a réglé ce problème là parce que codification léegi nangu nañ ko su loxo étudiants yi ba teg nañ benn commission boo xam ne benn doyen sax moo ko jiite mu ngi ciy liggéey ñu ngi aussi réfléchir sur la représentation des étudiants ñan ñoo war a mën a nekk délégué am na benn kuréel bu ñu tëral boo xam ne mu ngi réfléchir ci texte étudiants yi pour xool ñan ñoo war a mën a nekk délégué yàq kon yan condition la ñu nekkee délégué. parce que aussi du étudiants yëpp ñooy fauteurs de trouble ah c'est une minorité am na ñoo xam ne ñëw pour jàng. am na ñoo xam ne ñoo ñu bul jàng mais ñooñu il faut ñu identifier la ñu gën leen professeur xawoo leen ci euh, ci hmm. organisation bu bees boobu ngeen def. mun naa ne waaw mun naa ne déet peut-être que yàlla moo dogaloon ne moment bi la lañ jug pour mën a xeex loolu. mais yàgg nañ quand même wax parce que lu am na loo xam ne aussi. Hmm. c'est pas le combat du SAES. E c'est le war a jël seen responsabilité. parce que ñoom moo amee ñoom ñooy gouverner c'est pas le CESE qui gouverne les universités autorité ku nekk da am sa part ñun lu ñuy def mooy défendre les intérêts de nos collègues am na loo xam ne suñu liggéey mais nag am na foo xam ne suñu fa yeggee nag ba ñu attaqué ñu nag am nañu droit nag maintenant jël de de cette grande de Sénégalais mhm. euh, qui ont accueilli ces sanctions là vraiment avec une grande bienveillance mhm. parce que nag quand Euh, ñun ñëpp jaar nañu université. Mm-hmm. ñëpp produit de de de de de l'université lañu. Mm-hmm. Euh, jàngal nañ ñu ñu ñu tarbiya respecté ki lay jàngal ki lay ki lay ki lay transmettre savoir. sa sëriñ sa kooku mënoo mu amaloo ko lenn lu mm-hmm. euh, gërëm ko respecté ko ndax très souvent yéen da formé ay général ñu yi nangeen ngeen formé ñoo xam ne suba ñoo leen dëkk salaire. ñoo xam ne suba da ngeen soxla dem si ñoom. kon loolu ngeen def si ñun ñii apprenant yi kenn mënu leen ko fay. donc di gis ay scènes yoo xam ne nii wax dëgg yàlla xale yi dañuy dal seen kaw kooku rafetu mooy loo wax sànq rafetul ci république. rafetul tamit ci école rafetul ci université. kon sanction yooyu ñu jël te dama jàpp ne euh, euh, c'est à titre d'avertissement euh, ak tamit de prévention on peut dire ça pour que plus jamais ça. donc loolu man wax dëgg yàlla dama ci tàccu ndax dégg naa si kenn ku naan ay sama yaay kii moom moo waroon a xalaat yaayam. bala moo dem di di di def ay ay ay ay ñaawteef. ci l'observateur la ko waxee. voilà mooy xamal waa ñoo lànk boobu. bala moo bala moo waroon na xalaat jaayam. bala moo dem di attaqué ñi koy jàngal. ñi xam ne nii euh, euh, xamul lu ñu dund mais ñu jël jël seen savoir di jox waroon na xalaat yaayam bala moo dem di noot moo tax ñun ñun aussi parents yi nañ yar doom mais fa fi ma bëgg a laaj mooy gis naa ñu bëri ñu naan dañuy dem attaqué. Euh, décision bi ci naa donc ça c'est mooy appel mm. maintenant dama bëgg a xam léegi euh, appel boobu euh, naka lay demee ak aussi est-ce que du am recul Euh, na ndaxte sanction yi nga xas a jël ba jël ba pare euh, on espère que ça va faire tache comme ni nga waxee la grande majorité des des étudiants ñu bàyyi dëkk dëkkaat yi ñëw di jàng jàng si moo leen intéressé ñëw ñu nekk ñu si benn affaire de lobby wala nangam mais est que euh, quest qui quest se passer ci ci ci appel bi ñi xale yi bëgg a def. bon xaw ma exactement ban façon appel la ñu wax mais bu fekkee ne si biir université bi xam naa ne moom li ma jàpp mooy que. autorité yi yi nga xam ne wala membre commission de xalaatuma ne dinañ reculer peut-être que am nañ droit dem justice li ma voilà li ma xalaat voilà man li ma xalaat mooy dañu dem cour suprême loolu am nañ ci droit mhm, même ñun enseignant sax suñu amee ji jafe-jafe am nañ droit dem cour mhm. suprême léegi c'est à la cour suprême d'apprécier la décision mais yaakaar naa ne ñi nga xam ne parce que euh, daani gars yi jël ils ont pris tout le temps mhm. parce que dañ ko teg si parce que bu ñu fàtte ne euh, l'ancien recteur mos nañ ko condamné. Mm-hmm. parce que boobu xam nga gars yi des seen liggéey mun nañ xaw a yàqam ci ba def am ñu ko def mm-hmm. mais bii moom li ma xalaat mooy que gars jël nañ seen matuwaay yi parce que avant ñu yegg conseil disciplinaire ce qu'on appelle les commissions d'instruction. Mm-hmm. yoo xam ne voilà yi moom. parce que soo xoolee sax lu tax ñu suñu grève bi yàgg parce que ñun on avait exigé la convocation. autorité bi dafa jël faculté yi nga xam ne dafa amoon problème dañu tegoon ay commission d' instruction commission d' instruction def seen liggéey jox seen rapport bu ñu joxee seen rapport pare dafa am dafa am temps boo xam ne ko war a toog balaa ñuy convoquer étudiants yi loolu yëpp je pense que respecté lañu ko maintenant nag étudiants yi am nañu droit aussi suñu tegee daal ñu dem ko defal mais mais mais mais qu'est-ce qu'il Euh, euh, dal ci kaw ki koy jàngal qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé yéen tamit est-ce que am ci part de responsabilité quelque part a pas une trop grande familiarité est y a je sais pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour qu'on arrive parce que ñun man en tout cas euh, <laughs> université ñëpp fa la ñuy jaar mais ça ça vraiment ah kii moom kii moom kii moom kii moom a dàq àdduna yëpp dañu ko war a dàq ci waratu jàng ci dafa warut beneen métier mm, professionnel loolu suy laa moom truc mais mais mais qu'est-ce qui s'est passé ah? ko yoon may mu jël mais na dem ci yoon na dem ci yoon mais ça moom ça ça day nit a gën a fort nit bu ko defee day dem yoon saisir ko tout à fait tout à fait mais mais professeur lii lii nii image bi nga xam ne resté na dans l'histoire Cheikh Tidiane lii qu'est-ce que lan moo ko lan essayé na am na seen part de responsabilité en tant qu'enseignant non duñ ne ñun am nañ ci part de responsabilité mm-hmm. parce que ñun ay acteurs lañu autorité autorités yi ñoom ñoo war a assurer suñu sécurité. Mm-hmm. parce que étudiants yi aussi muy muy yi mu université il y a trois entités il y a les enseignants il y a les profs il y a les étudiants. Mm-hmm. bu ñu amee liberté d'expression am liberté dugg génn def nañu ne étudiants yi tamit moom dañu amee liberté parce que loi bi moo ko wax. Mm-hmm. donc ñun ñu wax na ñun ñoo ñun dañoo seetaan. peut-être autorité yi nga xam ne ñoo war a sàmm kaaraange ñoo deful lu leen war. mais aussi bon que soo xoolee aussi. comme li ma la wax rek la racine du mal c'est la structuration des amicales mooy lii mm-hmm, mm-hmm. parce que tey jii nii bu fekkee ne euh, amicales yi suñu demee élection kenn gagné. Mm-hmm. kenn kenn du ko nangu ñoo def lu ko neex ñu seetaan bii nii soo xoolee yaay am na ay fan fan yi ginnaaw xeex bi amoon entre Kikendo ak beneen mm-hmm. euh, beneen liste qu'est-ce qui s'est passé le conseil avait pris une décision de suspendre les amicales après gis ngeen di xew mm-hmm. Sénégal lañ nekk foofu pourquoi on n'a pas sanctionné les auteurs parce que foofu moor doom am na fa maanaam est-ce que commission discipline daje na ci cas pour sanctionner non commission discipline mooy premier amoon faculté des sciences jëloon nañu fi ay daan faculté mais mais kii wu euh, mais sanction yi sa ce que nekkul lim sévère wul wala li ñuy delluwaat. ginnaaw moo tax moo tax tey euh, xew tey jii. xool lii rek xool lii lii restaurant lii amical yi la woon mooy restaurant yi. Mm. nga ça c'est ça c'est tout cas li ma mën a wax mooy que jamono ji mm-hmm. taxaw nañ tem en tout cas les étudiants am nañu droit manifester kenn teeru la ñu manifester mais violence bi moom aujourd'hui moom la stratégie c'est très ku fi manifester def la war a def dañ la identifier. yóbbu la police ngi nii professeur yéen tam waa gis nañ euh, franchise universitaire yooyu da ci mhm. doon nekk di ko aaral seen bopp. gis nañ bu police daa dugg sax des ngeen ni kaas na pourquoi police dugg. fan lañ toll ci affaire police universitaire bi nga xam nga ñun suñu posture mooy toujours défendre les textes yi moo prévoir moo prévoir loolu. mais loolu mën nañoo réquisitionner a je pense que war na mën a nekk parce que on en tout cas ñun euh, suñu posture mooy que bu fekkee ne instant bi nii étudiants yi ba léegi arrêté wu nii te mbir bi dina yegg foo xam ne warut a yegg war nañu mën a réquisitionner police mais loolu xam nga loolu doo xam ne parce que ñun SOES dañu xaw a euh, tënku trop ci texte parce que ñun toujours ñooy prôner respect des textes. Mm-hmm. ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy soññ donc en tout cas li ñu mën a wax mooy que foofu bu fekkee ne vraiment la situation l'exige je pense que loolu SAES du si gis benn problème. Mm-hmm. du si benn problème si la situation l'exige du si benn problème waaye nag réquisition de police dafa va dire que forcément police day dugg parce que ñoom ñoo amee décision dugg. Mm-hmm. mun nañ la jox autorisation mais autorisation ne veut pas dire que forcément ñoom dañuy dugg. Mm-hmm. pas. même suñu joxe feu vert hmm. la décision hmm. professeur ci liste yi nga xam ne euh, dañ leen a dafa am collectif euh, buy boot étudiants yi dañoo génn ne am na ñoo xam ne boole nañ leen ci te jour boobu nekkuñu fa woon dañoo absenté woon est-ce que loolu lu wér la waaw man xam nga euh, siège wu ma conseil de discipline mënuma la wax carrément li fa li fa li fa xew parce que c'est des délibérations secrètes mais njort naa ne ñi fa nekk ñi fa nekk ak ni ma leen xamee yaakaar naa ne duñu foowee avenir lu xale yi. juum mënu ci am. Euh, ñun ñun ne parfait. Mm-hmm. ñëpp juum mais gëm naa ne. Mm-hmm. problème bi ni ñu ko songee ak ni ñu ko taxawalee ak ni ñu ko ak ni ñu ko liggéey gëw ma ne seen liggéey def na ko correctement am nañ droit nag xam nga étudiant moom am na droit wax ko neex. Mm-hmm. waaye ñoom lu ñu leen di ñaan mooy que vraiment ñu newuñu fii di di jël yenn daani ko jël yenn daani problème dafa am nañu assumer li ñu def ñu avancé moo ëpp solo en tout cas lu ëpp solo mooy que bis ni ki tey. dañu def lépp suñu kattan kattan parce que il n'y a pas uniquement la convocation du conseil discipline parce que le CES aussi avec la coordination Dakar avait demandé la tenue de l'assemblée de l'université parce que li bëggoon mooy dem ci instance parce que c'est mooy instance bi gën a mag université pour dem waxtaan parce que foofu étudiants yi ñu ngi fa parce que ñu ngi fa enseignants yi ñu ngi fa ñu toog waxtaan suñu biir xool ensemble yenn solution yenn piste la ñuy teg pour mën a régler définitivement indiquer définitivement le problème de la violence au niveau mmh. euh, euh, la police mmh. cas de prévention bi. Euh, déjà point bi euh, ma bëggoon nga mooy rapport bi am entre enseignant et étudiant. à l'université dans l'espace. rapport bi noo ko analyser ak aussi la surveillance même au-delà des amphis mais de l'espace surveillance bi. c'est même pas la police mais la surveillance en fait moo xam ay caméra la ak leneen. yow ko noo ko ak lan moo des loo xam ni euh, war nañ ko joyanti. et l'étudiant c'est un rapport dit formateur éducateur. lay dañu ñëw di jàng ñun ñu jàngale mais en même temps suñu jàngalee on a un rôle aussi d'éducateur te comme li ma la wax rek SAES e dafa mës jàppale étudiants yi si wàllum yëpp nag. am na ay yu ngeen jot entre temps des fois réglé euh, entre un enseignant membre du SAES e ak un étudiant ci des comportements moo xam de part et d'autre. li ma mën a wax mooy lii ñu gis tey étudiant bi ñëw arraché micro bi avant y avait Mm. bu sañ mm. fi dóor benn enseignant bu sañ fi dóor benn a même le doyen même le doyen il dit qu'il fait l'objet de menaces de mort ah. sànq loolu moom kenn du ma ko nettali loolu kenn man maa ko gis sa bopp loolu moom kenn du ma a nettali mooy élément Modou man maa ko gis man j'ai vu tous les messages que les étudiants yu envoyé mais kooku ak kooku moom réglé lañ problème am kooku moom yaakaar naa ne xanaa étudiant def non loolu damay bàyyi ce sont les résultats du conseil disciplinaire là ki ko def xam ki ko def gars yi dañu ko war a mën a xam a mën ki ko def kan la waaw ah, mu dugg nag yaakaar naa ko ah yaakaar naa ko parce que xam nga la délibération est secrète mënuñu la wax exactement voilà dawaayenkante mënuñu la wax exactement kan moo ko defee mais yaakaar naa ni ki ko def jàpp nañu ko ba sanctionné nañu ko loolu moom wóor na moom menace de mort moom ëpp na quand même ci ah, dans li naan espace universitaire surtout université bu ñu tuddee Cheikh Anta Diop yaa ngi koy wax sànq c' est vrai que yi baax na trop mais aussi di anticiper di waxtaan mën a une campagne boo xamante ni jàmm dina del si ba la tax a jóg université muy vocation mu matal ko mhm. parce que man yaakaar naa ne peut-être que ñi ngi sanctionné xalaat ñu woon ne lii dina am peut-être que suñ ko xalaatoon duñ ko def duñ ko def man am naa yaakaar boobu mhm. te naa naa yaakaar suñ fa lu bëri dina wàññeeku. Mm-hmm. Mm-hmm. mooy pédagogie par l'exemple mooy leen wax rek des fois réew mi da gis ñu bay bay bayal mbir dañuy mm-hmm. bàyyi ba duñ ci wax ba musi ba mu jur musiba comme ni mu xewee ci daara yi gis nga semaine passée élève bi ñàkk bakkanam ci loolu aussi on a trop laissé faire violence verbale déjà lay commencé psychologique avant ñuy ñëw ci physique ba bakkan ci root je pense que des fois comme ni ngeen waxee toog di waxtaan ngi en tout cas ñu ngi jëm ci assemblée université te li ñu bëggoon mooy toog waxtaan kuréel yëpp ñu toog ñu waxtaan comme li ma la wax am na benn kuréel boo xam ne teg nañ ko mu ngi ceytu maintenant li ñu war a structurer amicale yi dañu war a defee élection yi kan moo war a représenter quel type d'étudiant am na ay propositions fortes yu def ah, parce que mën nañu dem parce que tey jii lu ñu gis ne mooy sax étudiants yi nga xam ne ce des étudiants a nekk des managers war nañ mën a représenter mm. les amicales dans

def def defa jël naa disposition yi nga xam ne tey jii képp ku manifester def la war a def dinañ la identifier parce que le problème rek moo doon dem moo doon identifier soo identifier rek am ay preuve rek nga mën a di mën a di nga parce que tant que identifié wu jàppoo mënoo mënoo sanctionner mm-hmm. c'est ce que disent les textes mais aujourd'hui je pense que war nañ mën a yokk kaaraange te je pense que l'autorité est en train de travailler yaakaar naa ko yaakaar naa ko yaakaar naa ko parce que une problème c'est pas uniquement Dakar parce que gisoon nañu temps yi Kaolack donc loolu yëpp dañu ko war a je pense orienter dans toutes les universités parce que solution yi moom du benn université pour université yëpp la seen loxo est-ce que gaaw ngeen ci grève trop yéen yéen SAES la ngeen tee seen loxo banque ko loolu non gaaw ñu si grève ah parce que soo xoolee même le secrétaire général le dit ah Malick Fall soo xoolee SAES li mu grève si diggante trois ans yi bëriwul c' est que le SAES c' pas un syndicat uniquement qui pose des revendications c' un syndicat qui réfléchit qui accompagne aussi les ministères sur certains points nous réfléchissons euh, grève bi lu koy indi grève ñu sax parce que à un moment donné comme que suñu collègues mënuñu woon mais ñu commencé leen attaqué mais c' est normal qu'on collègues de rester chez eux en attendant pacifie l'espace universitaire c'est dans ce contexte bu du ay grève on n'est pas parti en parce que on avait am benn plateforme revendicative am na ñu ñaxtu non lu ñu bëggoon mooy que collègues yi ñu sécuriser ba nga soo gisee bañ bañu bañu ba ñu convoqué euh, conseil discipline yi mais c'est lañu suspendre suñu ñu dem vers lu ñu teel rek mooy que l'année universitaire se boobu ñëwaat parce que soo xoolee sax dañuy wax dañuy grève dañuy grève mais ak lu ñu grève grève suñu ñëwaatee dañuy dañuy dañuy dañuy kii dañuy dañuy rattrapé cours yi. donc loolu aussi il ñu si bàyyi xel parce que mënoon nañ grève jàpp nañu war na fi def nañ ko mais à chaque fois suñu grève suñu ñëwaatee dañuy rattrapé. Mm-hmm. Euh, bi bu euh, tegu est jàpp nga ni ah, programme bi gars yi dañ ko jeexal lépp jaar yoon. jàpp naa ko baax a baax parce que tey jii soo xoolee. am na collègue yoo xam ne soo xoolee am na collègue yoo xam ne dentiste chirurgien dentiste tey na ñu ngi ñoom it ñu ngi woote sax bi foofu mooy waa odontologie donc Euh, waa faculté de médecine nag ñoom dañu nekk si ñaari pàcc ñu ngi si enseignement supérieur ñu ngi si. Euh, ministère de la santé donc euh, dafay xaw a difficile trop nga xaw a saytu ñoom ban ban wax la ñuy wax itam dégguma ko. Mm. mais li ñu mën a jàpp rek mooy que en tout cas ñun enseignants yi on est là pour enseigner lépp lu si war xale yi vraiment ñu mën a jeexal suñu programme jeexal année bi dinañ ko def te soo xoolee sax faculté yu bëri ba léegi enseignants yi ça fait un an ngi soo xoolee que pendant yooyu daaw sax septembre la ñu reprendre donc on a fait beaucoup d' efforts et on continuer à faire beaucoup d' parce que loolu moo suñu. ñoom fac droit nga nekk amphithéâtre yi moom ñu tëjoon presque maa ngi nekk école supérieure polytechnique de Dakar quoi mais instant yi infrastructure yi donc comme xam nga instant comme que SAES moom dafa structuré le bureau national est en train de s'en avec euh, le le ministère. Hmm. te loolu sax bokk muy Thiès ak ñu bëri génn nañ ci infrastructure mm, parce que aujourd'hui le le principal problème des universités c'est les infrastructures parce que soo amul infrastructure yu baax bachelier ñu ngi yokk amoo infrastructure doo mën a doo mën a doo mën a qualité enseignement bi ni mu war a def parce que tey jii soo xoolee am na étudiants yoo xam ne sax duñ mën a dugg wal des fois fu ñu dugg jàng sax c'est tel suñ teelu ñëw duñ mën toog mm. mais loolu manque mm. te loolu mu ngi ci mu ngi mu ngi ci mu ngi de violence mun nañ ko wax psychologique. <laughs> daa soog dafa am lu ciy wax teg ñu yëkkati jotaay bi. mën jot na mhm. euh, euh, Sénégal amoon na ay temps euh, y avait des des assises de beaucoup de choses. amoon na fi ci enseignement supérieur Souleymane Bassirou Diagne moo ko jiite woon. voilà man recommandation yi jëfewuñ ci dara. loolu man man man man je pense que fii fii fii Sénégal toll ci ci ci ci ay vraiment. Euh, ñu perdre ay valeurs yu bëri euh, ay ay yu bëri euh, ak violence bi fu ne la nekk léegi violence aujourd'hui c'est c'est dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla kenn ampleur am kenn mënu koo natt donc pour man dafa dafa dafa dafa laaj yenn SAES ak yenn en tout cas acteur université bi moo xam les étudiants moo xam tamit le corps professoral Euh, mu am ay ay ñeneen nag ñoo xam ne euh, euh, dañ dañ dañ dañ leen ñetteel. Mhm. ngeen toog waxtaanee pour conscientiser davantage les enfants parce que mariirandoo bi toppandoo bi ak jaay kii daf daf daf ci kii parce que pour man sanction yi ngeen jël. xëy na buñ ñu ko teeloon a bu comme yow yu ko kookaande yu kookaande. kikendoo kakaandoo war mënu ma ko wax. kikendoo kikendoo waaw yooyu bu fekkonte ne sanction yooyu effective woon na. du ma ne lii du am mais dina dina néew ndaxte ku xam ne boo defee lii lii moo la cay fekk bala ngaa def di nga saytu mhm. kon sanction yi tamit euh, il faut pas reculer mhm. ndax gis nga euh, euh, ñaari feccikatu Wally Seck yee seen sanction yooyu man jàpp naa ne dina tax bu bu subaa ku bëgg a dof dof lu naan ay show naan xaaral ma def leen bisu fii wala tàpp fee da nga xalaat ne ah amat cooxi ceekat defar nañu nga bàyyi ko ñii tam suba tamit même chose mais assise daal Chérif laay laay woote. ngeen toog man jëfe am na Aziz am na maanaam recommandation yi moom xam na ji dara recommandation yi rek la war a jëfee parce que xam nga fii ñun dañoo tàmm di wax on on adore discuter euh, jël ay dem si ay hôtel yu bakkanee génn ay per jëm génn ay nangam waxtaanee nangam et après tout ça on range dans les tiroirs mais je pense que lii fu mu toll na foo xam ne quand même wax dëgg fa yàlla éliva euh, euh, de l'avenir de tout un pays c'est pas de la rigolade quoi parce que soo xoolee sanctions yi sax am na étudiants yi des ñu entendre gul ñu soo xoolee ah, dañu suspendre non jeexagul nañu suspendre institution en attendant ñu déglu leen mm. mën a xool yan daan la ñuy def mais dañ continuer incha allah. c' est heureux aussi d' apprendre li yi wax bañ yee fitna dem ci justice parce que je pense que comme justice mooy dernier rempart. exactement mën nañ faa dem am dëgg. ñu débouté leen ah parce que comme wax nga ko fi sànq sanctionné na fi état ci boppam dem na fi cour suprême ñu daan ko même si des fois mën nañ koo jëfee ak ñàkk koo jëfee. Mm-hmm. te loolu am solo ndax justice moom comme fa la nga xam ne doonee benn étudiants yi dem fa. Mm-hmm. je pense que moo gën kon ñiy yee fitna loolu tamit euh, c' est une bonne nouvelle li leen yoon koy daal di jëfee parce que réew moom dem justice moo koy. justice lépp France nga ne seen ministre de la justice moom dañ ko convoqué le 16 ngir nar koo sax voilà de la bàyyi mooy chaque jour ma ko mooy justice pour ñii justice pour ñële boo ñë boo touché zéro ci lii kiiwal fële mais bu loolu bi amoon bu doon bu fekkonte ne euh, euh, mbaxane doonee na fa benn comme ni ni ñu waxee kon xarit danañ dal mais bu ñu xalaatee ni fii y a des trucs politiques y a des ceci y a kooku euh, encore une fois nous ne sommes pas dans une jungle le Sénégal ne pas une jungle c'est une république te ay mag wax nga léegi jël université bi ko ku doon ne Cheikh Anta dafa naa ne ay mag yu baax tëdd fii ñun on on mérite autre chose on mérite une autre jeunesse que une jeunesse violente chaque jour da nga gis ay ñu rey fii viole fële yàq yi fi jàmbur fii loolu ce sont pas de bonnes valeurs à transmettre te loolu bu ko ci def nag defe naa ni euh, euh, justice nag il faut aussi ñu jouer le rôle qui est sa sa kaane bi nag Chérif na yëkkati ko ah. sa ko <laughs> ah. bi ñu ngi koy xaar xëy na man de le sept ma convoqué woon maa ngi ngay dem <laughs> amu fa non de am naa yaakaar ni gars yi ñu jëlaat ko bu ko defee ñaaxaat ñeneen ñu ñàkk ko Cheikh Anta Diop ci discours ba mu amaloon fële ca Niger Niamey moo doon wax gone yi ah formez-vous. armez-vous de science jusqu'aux kon daaraam ji na ko gars yi bañ a fayee hmm. fitna. gis na environnement bi ñu commencé rafet wala wax dëgg yàlla loolu lu am solo ñu ngi sant ñëpp madame Mine vraiment ñu ngi lay sant la gërëm bàyyi la nga tàggoo ah, toogaay bi cekk na ah, yaa ngi waaj a baax ñu julli ji ah <laughs> amoon mbégte ànd ak yéen Aïssatou ànd ak yow ci émission bi maam biram Chérif Dia euh, di jaajëfal aussi euh, invité bi mm-hmm. dig daje àllarba bi di ñëw ci euh, beneen émission incha Mm-hmm. Chérif ñu jaajëfal euh, ñëpp ñu fi teew ak mbokk téléspectateurs yi nga xam ni ñooñu safoo ñoom it di ñuy suivre. saa su nekk ci info du matin euh, merci professeur. merci waxtaan bi am na solo. te ñu ngi ñaan jàmm gën a am foofu ndax ñu ñëpp suñu mbokk ñoo fa nekk. saa su yëngoo rek euh, ah. dañ koy ressentir. donc euh, les quartiers environnants ak ñëpp ñu fay jaar ndax université moom ab dëkk la. Mm-hmm. voilà donc Aïssatou également merci beaucoup. <laughs> chaque jour ah, su ma génnee ay nit ñi waaye Youssouf lan nga ñaanal la ma ne ko on s'aime bien moo bien. <laughs> parce que moom moo may finnaal waaye moom moom moo baax ci man ndax euh, mooy coordonné sama émission yëpp ni muy coordonné émission yi fii te sama rakk la euh, sama sama sama sama sama rakk xol la te même bala maa wax fii foog ma woo ko ne ko Chérif ci lii laa bëgg wax mu ne ma nii ak nan la donc et puis tamit euh, comme ni nga waxee c'est c'est la liberté et ñun ay journalistes lañu donc kontaan naa trop nag ci bokk ak Birame plateau Euh, je pense c'est la première fois bien moom tamit mi ngi mi ngi mi ngi derrière voilà c'est qui c'est <laughs> en réalité le le le le l'un des cerveaux mais sinon le le cerveau euh, de de de l'émission et c'est bien tamit une fois tamit nga ñëw toog si may mën a nag dama ko may yaayam laa xam nga may mën a maanaam moom a bokk yaay <laughs> maanaam moom ñoo bokk yaay maman ummi ñu may seetaan maa ummi ko ma maa lay booleeg ma maa hors antenne waaw di gërëm professeur <laughs> vraiment di la di la di la ñaanal tamit wax dëgg yàlla vous ne méritez pas <laughs> vrai wax dëgg yàlla vous ne vous ne méritez pas <laughs> euh, euh, ngeen ngeen ngeen am voilà vraiment on oma gis nga enseignant yi Chérif enseignant yi euh, médecin yi personnel comment comment on di le personnel médical ñooñu benn askan mënu leen gërëm parce que dañuy enseignant yi ñoo gën a garaaw ñoom ñoo c'est le métier ingrat dañuy dañuy dañuy former ñoo xam ne nii Euh, bu subaa duñu leen gis ñu toog si terminal ah kii doon jàngal hmm. kon kenn war ñu war war war ñu ne amul lu dul euh, euh, dina sant leen gërëm di gërëm ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp mbokk yi kon jox leen daje ëllëg incha allah seen émission Infos du matin Alaaji Malick ñu ngi lay sant di la gërëm yaag Mansour ñoom Malamine ak Assane Ndong yi nekk ci régie ba di gërëm suñu naataango Abib Mbaye fële ci RTS ñu ngi gis message yi jaa jëf yéen leen jàmm programme bi day wéy ci télévision Futurs Médias ba ëllëg